Yalla ñu ko xañoon yalla ñu donc je yàlla dañuy sant yàlla bu baax parce que ku santul yàlla doo sant mais ku santul nit aussi doo sant yàlla moo tax bi léegi ñu dem Si nga xam war nañ fa taxaw pour nuyoo pour ñaan pour gërëm pour sant bépp kilifa bépp wayjur bépp àndandoo boo xam ni sa xel sa xalaat sa doole sa taxawaay sa jëfin dem na ci tàllal sa loxo yàlla pour ñaan lii tegu ci ñun teggul ko ci ñun mënuñu leen fay nag ñoom ñëpp yàlla leen yàlla fay yéen ñi nga xam ne nag ñoo séq yëf gi parce que ñu bokk bëgg-bëgg bokk jëmu bokk gëm-gëm kenn mënu leen fay suñu bopp lañu ñu liggéeyal yal na yàlla mottali suñu yéene te eggale ñuy gërëm bu baax di xalaat xale mag ndaw yama bàyyi rëbës rëbës gaa yi dañ defa ni bërëbu yàqukaay la maa ngi leen wax ni bis ni ki tey bërëbu defarukaay lawu aussi nit mën na fa baaxe nit mën na fa jóge dem topp yàlla bëgg nit jóge fa nag topp yàlla moo tax ñun ñu yaakaar ni na fa xale yi nekke na fa mag ña nekke war nañ ko soppi war nañ ko change ba ku fa dugg ak sa dignité doo ko fa génne ku fa génn ak sa ku fa dugg ak sa xol doo sa xel doo fa fa génne ku fa dugg ak wér-gu-yaram doo ko fa génne donc améliorer condition ya fa nit ñi nekkee loolu mébét la yene la bëgg-bëgg la may wax wa rebe ci may dégg yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ñaari at ak genn wàlla dund nañ ko ci kaf ci jàmm ci ree ci tout le personnel de l'administration pénitentiaire ay jigéen lañu ay xale lañu ay xam nañu lu tax ñu nekk foofu naam seen maintenant, metti na naam mais ñu koy def dignité ak ngor ñu xam mébét engagé état bi bis bu ko mënul bis bu ñëwee ñun ñu def la agence service pénitentiaire de xaar urgent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 li ma bëgg ñu jànge ko ñun ñëpp ci lii mooy yàlla ku mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la ko soo ci tiiree son yi da ci mën jëriñoo lu bari tiiree leçon yooyu nag moo ñu amal solo ñun duñ fi nekk di mere Masamba di mere Mademba duñ fi nekk di xas Masamba di xas Mademba loolu weesu na weesu na depuis le 29 c'est fini.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 sama engagement pour liggéey ngir suñu réew defaraat defar suñu réew ci fànn boo xam ne sénégalaise bu nekk ak sénégalais bu nekk di nga gis sa bopp defar réew moo xam ne comme ni assise nationale yi nga xam ne suñu base gis-gis ak stratégie ak orientation tëgër dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique mais surtout li ci am solo mooy nit ki chaque sénégalaise et chaque sénégalais yaay manal di matal di mottali defal sa bopp kenn baña topati ci kenn di lappi lappé ke yaakar ak ñaan nañu yeewu nit ñi li koy def jangala système éducatif bi ñu xolaat ko formation professionnelle bi ñu xolaat ko xol nak nan lañuy doxale réew mi ba yenn tolof tolof ye yenn jalgati ak yenn yi bañatee am ñu créer état ñu gën a dëgëral suñu état état boo xam ni institution yi ko composé ku ci nekk sa rôle di ko jouer normalement parce que loolu am solo soo gisee citoyen gëm état c'est parce que état bi ku nekk la nga incarné ci sa wàllu ci état bi da nga kaa fees dell te doo ci seet dara doo ci ragal dara doo ci ji dara loolu la ñu réfléchir ñun ñëpp nan lañ koy defé comme ñun li ñu wax nous n'avons pas de la science infuse nous n'avons pas de solution miracle gis nga fi bu kenn yaakaar ne nit kuy cëpp ci asamaan nga ni top fi réew mi mooy ànd ñun ñëpp ñu ànd juboo déggoo waxtaan liggéeyal suñu bopp ñun looloo ñu amal solo ma bëgg waaw looloo jëmale Sénégal kan parce que xam nga li am solo mooy réew mi tollu woon na foo xam ni nit ñi defe nañ ni yaakaar daf fi jeex mais yaakaar gi ko li koy dekkal li koy def ku nekk ci ñun lay doon il faut que chacun de nous soit porteur d'espoir pour qu'il soit porteur d'espoir il faut que moom mu gëm boppam gëm réewam xam ni réew mi nag kenn ëppalewu ko ci nañu libérer nit ñi ci ñun ci ñun homme politique yi nit ñi yaakaar ni ku politicien dimbaliwul doo dem ku ñu jàppalewul doo dem nañu gëm yàlla gëm suñu bopp daañu dem sénégalais bu mel noonu lañu bëgg tabax gis nga li nga xam ni moom lañu am muy pétrole bi ñuy wax ak muy naaj bi ñuy am lépp lu ñu yàlla jox suñu ko gëmee gëm suñu bopp xamni ne ñun dong ñoo war défar kenn duñu ci fekk ci dañu dem motax sank li mo wax ci français man leen il faut que cette économie extravertie nga xamni li ëpp ci li ñu am dañ kaa jéggaani naam nañu jël li ñu am ñu normalement si dans un horizon de 15 à 20 ans on acceptait de nous affranchir de l'importation du pétrole et de développer le solaire réew mi mën gis kanam ñu bañ importer train. fexe ba créer ay sociétés yuy defar fii loolu loolu moo am solo nañu inversé bu ñu yaakaaree ci bitim réew nañu yaakaar suñu bopp loolu la ñuy ñi la yi la ku nekk ci ñun xam ni sa morom la nga ëppale woo ko ko ku nekk ci ñun xam ni defar réew mi la war ku nekk moo la war ku nekk ci ñun xam ni réew mi ñoo ko moom su yàqoo ñun ñëpp la yàqul ñun li gëm mooy kon ni ko Senghor daan waxee ànd booloo mooy suñu doole boykat bi wax na ko àndoo booloo mooy suñu doole bon nag ngeen xam ni réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo ko moom nag du wax jëf rekk la nañuy jëf nañuy jëf